voilà ah, Mame Birame maa ngi doon wax sànq Ayoba ce qui ne tue pas rend plus fort mais apparemment ce que euh, waa fu dund ak tey askanu Sénégal ñi ngi leen koy fay ci mbedd mi maintenant nag la grande question mais est-ce que ça va se répercuter euh, dans les urnes. waaw de toutes les façons xam nga euh, fi ñu toll nii moom ak élection yi ñëw nii. Mhm. Sénégalais yi ñoom ñoo war de manière souveraine. Euh, choisir ki nga xamante ne nii moom la ñu wóolu euh, pour mu euh, jiital leen léegi nag bu ñu nekkee dans une société boo xamante ne nii souvent le sénégalais il a du ma wax sax de nature mais daa xamee nañu ko mu am benn attachement bi par rapport ak koo xamante ni dañ koy néewal doole maanaam souvent day bëgg a féete ci ki nga xamante ne nii victime la dañu teg ci kaw ci kawam loo xamante ni moom dafa jàpp ne teguwul ci eh, yoon soo seetloo daanaka eh, eh, le président Macky Sall ci circonstances yooyu daanaka la faloo bi nga xamante ne nii <clears throat> pardon bi nga xamante ne nii jàpp nañu ne génnee nañu ko PDS dàqu ko assemblée nationale donc sénégalais yi gis ci moom benn genre victime boo xamante ne nii pour ñu jox ko sympathie bi ñuy ressentir daawuñu hésiter. bien a Macky Sall sax mun nañu wax également que Idriss Seck ce qui euh, li defoon sa force ba en 2007 mu classé wu deuxième ak plus de 14 pour cent euh, de l'électorat c'est mhm. parce que effectivement temps yooyu ci diggante euh, moom ak Abdoulaye Wade chantier Thiès yi ay dossier de justice ñu dem ba quelque part percevoir ko comme une donc situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund tey mun nañ ko également assimiler à ça puisque que a vu euh, depuis un certain temps euh, machine euh, état bi daal di daa euh, braqué wu euh, ci ñi nga xamante ni ñooy waa Pastef ñu dem sax ba voté à l'Assemblée nationale des lois yoo xamante ne nii dem na bay war a bay méngale koo xamante ne nii dafa wàcce ci mbedd mi di manifester à un terroriste donc bu ñu demee ba toll ci situation euh, euh, euh, quelque part d'animosité laay wax sax puisque dem naa ba benn instant ma naan il y a plus d'adversité entre les deux camps li xew mooy animosité la preuve boo boole woon ci salle bi cinq minutes rek li ñuy mujjee mooy xeex mhm. donc bu ñu demee ba euh, tiraillement bi toll foofu il fallait euh, quelque part que mu am euh, comment dire mu passé ou mu cassé loolu rek daanaka moo ci desoon yàlla nag oh, suturaal nañu ba nga xamante ne ni leneen lii xew ci yeneen dëkk yi eh, xew fi dem nañu ba eh, Macky sàll mi nga xamante ni daanaka moo sooke woon loolu yëpp normalaat gis ne kat war na woote décrispation pour man eh, c'est une bonne chose léegi nag li nga xamante ne nii moo des puisque tey jii nii dañu comprendre que ne depuis les années 60 ba léegi Sénégal daanaka ci débat de personne la ñuy nekk jamais ñu nekk ci ay débat d'idées de Mamadou Dia à Senghor seen duo boobu noonu la ñu nekk chaque euh, euh, yoo xamante ni en définitive programme du génn xel du génn ku ñu fal nga ne euh, réew ma naxee mbaay ki ngeen yaakaaroon ne moom la doonuma ko tey jii nii nag je pense que te loolu sax moo gën a indil Macky Sall jafe-jafe dafa euh, dajeeg jamono joo xamante ni bu ñu naan euh, Senghor xëy na quotidien yi ñoo ko xataloon ba euh, mu jóge fi Abdou Diouf ñu ne rajo yi Abdoulaye Wade ñu ne télé yi Macky dafa dajeeg réseaux sociaux yi ce qui fait que mu am benn vent de changement boo xamante ne nii mm-hmm. accès à l'information daf ko facilité maanaam nax yi ñu daan nax africains yi daan leen gëmloo ne yéen euh, euh, cette technologie la que dañ leen daan nax yàgg di leen nax tey jii nag ñu yeewu bëgg véritablement seen destin changé maa ngi koy wax la dernière fois euh, boo gis les jeunes ñu génn nii ak autant d'engouement di topp ci ginnaaw leader quelque part da nga ciy am fierté puisque soo gisaan sénégalais yi génn ba toll ci dayo boobu souvent ci ay caaxaan la daan doon Euh, maa ngi joxe bu yàggul dara exemple Vaidé yi nga xamante ni ab actrice inde la jóge fële ñëw Sénégal mais des milliers de jeunes dagg ci mbedd mi di ko accueillir la même chose également nga doon gis ci euh, équipe nationale beeg yooyu ce n'est pas que dañu ne yooyu amul solo mais quand même avenir ak euh, naka la Sénégal war a mel suba loolu moo ëpp importance lépp loo mënti jël tey jii nee nag bu ñu demee ba autant de jeunes di génn te topp ñu seen bakkan topp ñu seen neex-neex lu ñu jàpp mooy gëm nañu ne Sénégal dafa war a changer gis nañu ab leader boo xamante ni mu ngi koy incarner mu ngi ñu topp ci ginnaawam je pense que changement boobu mënul ñàkk forcément day am. Mhm. d'accord euh, am na question booy jagleel euh, Khadija avant ñu ñëw ci Aliou. Euh, <laughs> waaw boobu c'est des observations rek mais y a pas de souci. d'accord mm. Aliou ñu ñëw ci yow par rapport ak li ñu doon wax sécurité bi nga xamante ne moo war a ce scrutin là bi nga xamante ne éléments yoo xamante ne les gens en veulent en demandent et li ñu bëgg moo di la transparence mais ni ñu gis mu commencé doxanin bi ñu bëri ñuy wax ay manquements yu am ci euh, zone yu bëri surtout euh, dans la diaspora mais également ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a scruter les centres de vote ak yooyu ñu ci ëpp autant c'était les enseignants